laal laaj ko eh yow kan moo ànd ak kii ah kii doon mooy yaa yaa lan moo tax ngeen indi ko

day faral di daanu ci école bi. day faral di daanu ci école bi nag loolu muy daanoo moom def ko kersa mu dul jàng gi. waaw ah, mu ne doonul jàng moom ñaata at la am. am na ay vingt ay vingt deux ans wala ay vingt et un. bu mag xaritam moom fii nii ci guddi. xaritam waaw. moo xaritam ñu naan man damaa loolu ñu woo ma ñu ngi fii. waaw moom kon nag da ko daan faral di seetaan. moom ah. waaw da koy seetaan. naan dina ko seeti xaar bi ñaan ko dina fa dem naan dina ko dem. moom ñaar fan yëpp day feebar sonn la daan def pour faj ay nekk kër rek ñu woo ma ma woo laa ñëw ci guddi. maa xaritam ñaar xaritam yi ñu ngi koy faral. ñoom ñu. ñu toog ay xaritam yi ñu àndal moom. ana xaritam yi yëkkati na seen loxo. waaw waaw d'accord. yéen a moom lañ ma bokk fu liggéey. waaw mbokk yi dégg ngeen loolu dafa doon jàng école ah. moo tax ngeen indi ko. mbokk yi gis ngeen xale bu jigéen bi la daan jàngee waaye daanu bi moo tax mu dem burus bàyyi jàng bi léegi nag ay xaritam ñoo ko indi waaw toogale na nga rek. yaa waaw soxna si kii la yéen. waaw ko feebar bi yàgg na ko mais fan yii daal daf maa sonal ak ceeba te bu ma ko waxee man d'habitude comme yàgg na ma ko wax mais bu ma ko waxee man guddi gi damay feebar. bu la waxee. bu waxee ne suba wala ginnaaw suba dañuy dem ci Thierno dama naan ko bu ko waaj ndax man damay feebar léegi moom xam naa ko. léegi moom moo di ma géntuloo sama wet gi la sama wet gi ba tay jii nii sax day metti wet gi suufu wet gi. kan mooy def loolu yow. nee na moom mooy def loolu. yoo xam ne waaw moom ndax bi ngeen doon jàng ci école bi la ko njëkk a daanaka wala kañ la ko njëkk a daanaka kañ ngeen ko njëkk a seetlu ci moom foofu ci école bi. moom ba ñuy def bac dañuy saal bi ñu bokkee saal moom examen daanaka ci lañ commencé di wax ba commencé nekk ay xarit ñu dem ba nekk vraiment suñu meilleur ami mm-hmm. léegi ci lañ dem ba classe seconde. ak euh, li ñuy partagé yooyu ci la ma ko expliqué ni ma man damay naan naan ci la ko daanoo ba day dem ba affaire bi bu ko yeewee yu bëri sama wet bi sax moom moo ma ko waxoon ni ma balaa naa ba tey daal la xëy woo dafa génnoon mu kii ñoo man de tey damaa bëgg a dem ci Thierno mu ne ma ne ko maa ngi nii di arrêté sama cours maa ngi ñëw léegi bu ko waay. maa ñëw ba seen kër laa jël kii muy tappale yoruma xaalis naa nga mën a ma ne ko dañuy dem tax man su ma demee naa retiré orange money bi moom ndax am na bag wala defagul bag. non moom def jotul yeggali terminal. ah jotul ko àggale. man na ko may yeggali. waaw soxna si itam yaa ngi kii yéen a ànd ak xale bu jigéen bi ngir dund ak moom naka ngeen dundee ak moom ak li nekk ak moom. waaw fan yii moom dañuy topp dañuy sonal damay dem ci village damay dem ci village. ñu mm-hmm. koy topp na ko bul dem xaaral ba ñu lijjanti bi ñu sottee après nga dem Barcelone. tey ñu ànd ba sàndal mu ne sama tànk yi dafa gis de tey moom fa jaar danaa dem man ko man de mënul yóbbu il faut nga tàggu sa yaay ba pare. après comme li muy def rek mu commencé di ma jéppi di ma xeer ndekete ba tegante moom na ko day dem te dafa ñëw def ay renseignements. président bi moo xamal ne ñu ci après ma tam ci la xam ne jaay mais feebar bi moom du fa ne yàlla après bu ñu kii ñoo bokkoon classe bi mu bàyyee après ñu koy ko doxalee après mais fu mu toll lay jàmbat sama ween sama bopp bi man dafa mujjee bàyyi man tamit xam nga rek comme te lañ man tamit arrêté ko tey ñu dem sànd ñuy wër lii wut bii bi da koy toog sama tànk yi di ko diis mënatuma ma koy forcé nañ dem rek bu ñu tayalee duñ am dafa dafa dafa jógee Sandaga sax te amul yàlla xam loolu ndekete bi ma duggee loolu di jënd kër yi ak da làqatu ma boo kii nii dañoo dugg rek seen kër jaaruñu sax si ànd kii si la ñëw forcé ko baagante na ñaari yoon bu demee nag fàtte naa sama poset kii xëcc si loxo bi dañuy dem bu ñu demaatee sax mbir mi dafay nekk kii xëccaat ci loxo mujj gi si la kii xëcc ci loxo bi dugal nañ ko sax dañu koy def mais comme des ay kilifaam yëguñu ko ñoom tamit leen doon maanaam waa xaaral ma koo sama tool si la rek mu ne kii dafa mujjee daal après si laa dem mooy yow yaa man bi may jël personne fekk na ko nga gën a bala ñuy dem ne xanaa di amul kër gi après ñu maa indi yàlla. merci beaucoup yaakaar naa ni kàddu yi leer na waaw sëñ bi kon yaakaar naa ni ñu àndal seen kàddu waaw mbokku jullit yi mbokku taalibe yi dégg ngeen kii. laata li nga jinna atake approché atake approché jinna haɓɓe mo nangemo jinna atake jinna yewale mo haɓɓe mo nangemo haɓɓe mo nangemo jinna haɓɓe mo nangemo haɓɓe mo nangemo jinna fofowol ful nangue amor yawhir nangue inna allaha inna allaha libadi basiran jinna wono ko ɓe to loteke talateke allah kanta annabi kanta ɗi ɗum tigtigti ɗum tigti yeewal leen ma ko jinne yeewal leen ma ko jinne na wax moom la kan wala ngeen jël ñaari loxo yi teg ko ci pot bi na wax moom la kan wala ngeen jël ñaari loxo yi ngeen di utiliser da ngeen di jël ñaari loxo yi ngeen teg ko ci baat bi jinne yi nga jóg ñaari loxo yi nga jóg jóg ñaari loxo yi nga jóg jóg ñaari loxo yi ñaari yëpp ñu jóg laa loxo yi ñaari loxo yi ci baat bi ci baat bi ci baat bi jëlee ci baat bi ci baat bi téyel leen ma baat bi ñaari loxo yi la téye baat bi la téye ba pare xoj téye xoj ba mu yuuxu jëlee xoj allahu

allahuma la xoj xoj ba mu yuux xoj ba mu yuux xoj ba mu yuux xoj xoj ba baat bi dee xoj ba baat bi dee xoj xoj xoj bu baax xoj xoj samp bopp bi xoj xoj samp bopp bi jënd allahuma la xoj ba mu wocc xoj ba mu wocc dina xoj xoj bu baax a baax xoj

yëkkati leen. lu war a na tourné lu war a noonu. lu war a jàkkaarloo noonu. Ah. Ah. tourné. Ah. waaw c'est bon. لو ترى ترى نورا اللهم له اللهم له اللهم له Hot, hot, hot, hot, hot, hot, hot, hot, hot, hot leen ko jëlee yëkkati leen ko mu jóg léegi na jóg na jóg na jóg na jóg taxaw yëkkati leen ko mu jóg léegi bàyyi leen xoj bi bàyyi leen xoj bi xam nga ne xoj bi est-ce que antan ko na jóg léegi na jóg na jóg yëkkati leen ko mu jóg na jóg jinne sax sax na jóg na jóg ñu jóg ñu jóg taxaw yëkkati leen ko mu jóg taxaw lii maa man rek maa mën si ñoom daal ñu jóg taxaw na taxaw ju xoj jox ko mu baax mu pompal ko kanam na taxaw ju xoj na na siggi na siggi taxaw na siggi taxaw na siggi taxaw jinne yi doon leen ko paralysé leen daf leen ko paralysé na paralysé na paralysé xëy na leen lekk bu mu na jóg na jóg yëkk na leen dem jóg na jóg yëkk na leen dem jóg jinne na jóg na jóg taxaw jóg na jóg na jóg na jóg na jóg na jóg na jóg jóg na jóg na jóg na jóg taxaw na taxaw na taxaw na taxaw na taxaw rey leen benn wet ABC ABC dóor leen ko ABC ABC naka la mu noonu ABC ABC dina na na paaraan na ABC ABC na dox paaraan na ABC même jëmmi bi sax na jàppale jëmmi jëmmi ABC bu mu na dox na dox ak paralysé ABC Alors, ABC. ABC. ABC. na ABC bu ñaaw sax paralysé bu ñaaw mu daal mu laal suuf na paralysé paralysé bu ñaaw sax ABC da ngeen di benn wet bi ak benn tànk bi benn côté bi ak benn loxo bi ngeen di ak benn tànk ABC ah, benn loxo la benn tànk bi na dee téye leen traite benn loxo la benn tànk bi na dee na dee ABC ah, mbokk yi gis ngeen du gis ngeen ah ak ah, lan ngeen xalaat pour ma def ko moom moomu kii jinne bi da ngeen xalaat dara rek ngeen wax Thierno def ko lii. xalaat dara ngeen ne Thierno def ko lii. ah. parce que ba tey dina am ABC bokk jullit ci mbokk taalibe suñu borom moom mooy. parce que léegi ABC bi na deñ na ABC bi deñ ABC bi na deñ yaram bi na delluwaat normal ci léegi. na siggi na siggi taxaw na siggi taxaw na siggi taxaw. mbokk yi léegi def leen ko kuy yuub lay yuub def leen ko yuubkat def leen ko yuubkat lay wàcc yut yut yut yut yut yut yut jën yut yut yut yut yut na yut na yut yut yut yut yuti na ñëw yutiti yut yut yut yut yut yut yut yut yut yut yut na yut yut yut yutit na gen jën na yuti gen yut yut yut yut mbokk yi yuut yuut yuute day génn day génn ji di bàyyeekoo ak yuut bi di génn. yuut yuut bi nay bari gémmiñ gi nay bàyyi yuut rek nay bàyyi yuut gémmiñ gi lay bàyyi yu xam nga am na yu bëri ci digg nit yi la sinon dama koy dañ koy def looy garaaw waaw allo yuut yuut yuut yuut ne yuut yuut yuut yuut yuut macha allah gis ngeen gémmiñ gi mu ko ngeen ubbi gémmiñ gi mooy ñëw gémmiñ gi na ubbeeku ubbeeku gémmiñ gi ubbeeku ubbeeku ubbeeku ubbeeku ubbeeku ubbeeku ubbeeku na gémmiñ gi ubbeeku mbokk yi gis ngeen instant bi dafa AVC yéen a ngi gis léegi ABC dina dañ mbokk yi jinne ABC dina dañ ABC dina dañ na taxaw cocc cocc cocc yaram yaram bi na normal la dindi leen ABC bi yaram bi jinne yi mbokk ah. yi yow la kan ah sigil yow lan la ah yow nga duma leen ma ko jëlee tànka waxul duma leen tourne leen waruloo leen mu tourne tourne leen tourne leen mu tourne mu tourne mu gaaw tourné tourné tourné tourné tourné leen ba mu miir tourné mu gaaw mu gaaw tourné leen ba mu miir tourné tourné tourné ba mu miir tourné tourné tourné tourné tourné tourné tourné tourné tourné tourné tourné tourné ñu ñeneen ñu doon tourné mu gaaw mu gaaw tourné tourné tourné leen tourné tourné tourné tourné tourné leen ba mu miir tourné tourné tourné tourné tourné tourné tourné tourné tourné tourné tourné yow yaa ngi naan foofu moom la bii la ma jàpp yaa ngi indi sa xel tuur tuur tuur tuur bu paree ci moom yow lañ jëm yow ay borom yi génne ngeen boo koy gis ngeen tuur na jóg jox jox c'est kii yow la kan ñaata loxo nga gis ñaata loxo nga gis ñaata loxo nga gis mbokk yi na jóg na jóg taxaw ñu defaat leneen na jóg na jóg taxaw yëkkati leen ko mu jóg na jóg na jóg jóg jóg jóg jóg jinde yëkkati leen ko mu jóg na jóg jóg jóg jóg jóg jóg jóg jóg jóg na jóg na jóg na jóg na jóg na jóg taxaw mbokk yi léegi bàyyi na yaram mu normal ngeen bàyyi lépp na normal léegi moom na normal léegi na dox na dox na dox dem ñëwaat na dem na dox normal na dem ñëw na dem ñëw na tourné waat na tourné na tourné leen ko mu ñëw léegi def leen ko silmaxa bu mu gis muur leen bët yi muur leen bët yi di lay silmaxa sil sil maxa maxa maxa maxa lëndam lan lan bët yi di bët yi lëndam bët yi lan lëndam mu gis dara mu gis lu bët yi lëndëm lu bët yi lëndëm na mel ni bët bët yi na lëndëm na mel ni na bu mu gis dara bu bët yi gis dara jinne bu mu gis fu mu na bët lëndëm kurum na bët lëndëm kurum am nga kurum boo gëmmee na gën a lëndëm même soo gëmmee nii léegi nag na dox na dox na dox na sikki na sikki na sikki na sikki le sikk def leen ko silmax silmax silmax le bëti lëndëm kurum silmax silmax na dox na dox silmax silmax silmax na jóg na jóg na silmax na silmax parce que am na silmax yu bëri dañ leen liggéey nii la ñuy def dañ leen dañ leen boole seytaan yi tey seen seen bët ñu bëri silmaxa yi nga xamante ne nii dañ daan gis xëy gisatul waaw silmaxa na silmaxa bu mu gis dara na dox na silmaxa na silmaxa na silmaxa na silmaxa na silmaxa na silmaxa na silmaxa na silmaxa na silmaxa na silmaxa na silmaxa silmaxa teere bët silmaxa bu mu gis teere ñaari bët bu mu gis dara bu mu gis na dox na dox silma na dox na dox na sikki na sikki na sikki na dox na dox na silma na dox dox na dox na silma mu mu gis bëtam yi na gën a lëndëm kurum na gën a lëndëm kurum na dox na dox na dox na silma silma waaw gis nga moom suñu mbaax noonu lañ ko def te gis nga. ñu ngi leen di gis nga lu nga gaa nga gis nga ah. Mm. na sigg na sigg na sigg na sigg taxaw na sigg taxaw taxaw sigg taxaw na silmax ba mu gis dara bët yi mën na xoole waaye moom du gis dara du gis dara mais moom bu mu gis dara bu mu gis dara bu mu gis dara bu mu gis dara bu mu gis dara. na silmaxa na silmaxa na silmaxa bu mu gis dara. léegi nag na dox ba nekk silmaxa bu nga xamante ne dafa bëgg a dox. dafa bëgg a dox lu nekk si maxa bu sa bu sawar lu nekk si maxa bu sawar si maxa bu sawar si maxa bu sawar bu bëgg a dox bu sawar bu am activité si maxa bu sawar si maxa bu sawar nga nekk si maxa bi nga xamante ne day bëgg a dox rek day sawar day am activité day sawar day sawar waaw waaw man tam maa ngi ñu ngi rotteeku ma ne maa ngi rotteeku waaw na nekk si ma moo koy gis nga léegi nag ñu dindi silmaxa bi ah léegi dindi leen silmaxa nga gis gis gis gis gis gis na gis na gis bu baax silmaxa bi day na gis xool xool gis nga sànq gis léegi silmaxa bi dañ na gis na gis jaaxlan gis lu leer lay gis nii na dox na dox ñu xool boo koy gis nga laal na ko na dox day gis day gis carrément day gis léegi dama bëgg ngeen dox loo ko di ne ngeen dox loo xel mi tourné xel mi wala wëti leen xel mi xel mi xel mi na dem na xel mi dem na nekk dox buy tàcc di fecc dox buy tàcc di fecc dox buy tàcc di fecc na nekk dox buy tàcc di fecc dox buy tàcc di fecc na nekk dox bi nga di fecc na nekk dox buy tàcc di fecc bu sa ne jinne jinne bi ko jàpp laay def comprendre waaw na nekk dox buy tàcc di fecc day tàcc di di fecc bumbee na fecc na nekk tàcc di fecc na tàcc di fecc jinne na tàccu di fecc na nekk dof buy tàccu di fecc day tëb na nekk dof buy tëb buy tëb na nekk dof buy tëb dof buy tëb di fecc tëb buy fecc dof buy tëb fecc di lay na nekk dof buy tëb dof buy tëb tëb di tëb di tëb di dal tëb di dal na nekk dof buy tëb di dal nay tëb ba ci kaw di dal tëb ba ci kaw di dal nay tëb ba ci kaw di dal nay tëb ba ci kaw di dal na nekk dof buy tëb ñuy jàngalaate ji bi ñu nag bu xale bu jigéen la ñu man laay sonal instant bii laay wan ne man moom moom jinne bi ko téye laay humilier wan ne ko man du ma moroomam waaw gis nga nan la di fecc tàccu di fecc dox buy tàccu di fecc jinne bi ko jàpp laa def nii léegi nag ku mën a def lii jinne xam nga ne lii dañu ci doomu aadama léegi nag na nekk dof dof bi nga xamante ne lu xonq lay bañ a gis dof bi nga xamante ne lu xonq lay bañ a gis lu xonq man xaw ma lay bay bis. ndax mbokk yi gis ngeen lii yëpp dañuy dañ ci nit ñi c'est grave waaw gis ngeen lii léegi nag ñu ngeen ko yëkkati mu jóg na jóg na jóg jóg jóg jóg kii na yëkkati leen ko mu jóg na jóg na jóg jóg jóg jóg ànd ak sago na jóg ànd ak sago indiwaat leen sago bi xel na ñëw na xel mi ñëw na xel mi ñëw xel mi na ñëw sago bi na ñëw cooc na xel mi ñëw hey c'est yow la kan yow na jinne yow la ban jinne xamoo noo tudd xale bu jigéen bi depuis kañ yaa ngi topp yàgg na fan nga ko toppee ah maamam maamam dafa amoon robinet ci robinet maamam nga ko toppee lu tax nga topp ko ah daf laa neex rek aha yow yaa ko créé yow yaa tax mu bàyyi jàng lu tax. ah. dafa dem bay rus waaw. mu toog kan moo waral loolu yow yaa yàq jàng jaamu parce que yaa koy daanu muy rus loolu foo ko teg yow yàq jàng doomu jaamu foo ko teg ah. bëggoo kenn gis ko. lu tax bëggoo kenn gis ko danga ko bëgg. yaayam dem nga ci yaayam.

mbokk yi gis ngeen jinne bi la nee na bu indee garab mun na bu ko foofu bu yàggee mu sànni ko gis ngeen parfois na indi garab mun na bu foofu bu ko laal loolu yëpp seen pexe la yow. mbokku jullit yi mbokku taalibe yéen a ngi léegi ban heure moo jot. ma it ma dem jàpp julli mbokk yi ma daal di ñëwaat. waaw heure julli jot na ma dem julli fajar ñëw ñu continuer ñu xool waaw léegi nag maa ngi ñëw tey leen ma ko fi ma ñëw dem julli fajar nag fajar jot na.